Amadou Ba euh, ci kawam euh, jeudi dernier la campagne am démarré réellement euh, aujourd'hui il fait ful mais ci kawam euh, avant euh, jeudi dernier jànkonteel na ay problèmes yu bëree bëri mu am ñoo xam ne dañoo taxaw contester ko ouvertement combattre ko ils sont même ils se même investis pour que ñu euh, reporter élection bi mën a changer Euh, de de candidats mu am ñoo xam ne li président wax d'accord nañu ci mais dañ doon xaar président yeewi leen euh, ñu xam nan la ñuy nan la ñuy nan la ñuy taxawee euh, lan nga mën a jàngat ci jafe-jafe yooyu nga xam ne jànkonteel na ko du début de la campagne ba jeudi dernier nga xam ne ci la campagne am mercredi dernier nga xam ne ci la campagne am décollé. jàngat loo ci jàngat mooy. Amadou Ba nit dëgg-dëgg sincèrement bu fekkee ni dal ak muñ ak tey mooy nit nit dëgg la deuxième jàngat bi mooy homme d'état dëgg la parce que li mu daj lépp déggoo ko mu wax déggoo ko mu yuuxu te li mu daj mburu daju ko ci taal man résilience li tubaab bi waxee résilience xaw ma noo koy waxee ci wolof man loolu daf ma jaar honnêtement yow nga commencé sa campagne sa matériel électoral ñu téye ko ci sa biir campagne ñoo bokkal camp politique di réunion dindi la ci candidature ci biir campagne bi président de la République waxee nga bàyyi ay bis bu ne journaux yi rajo yi télé yi nga bokkal camp di la attaqué ouvertement te kenn mësul a dégg nga ni un respect honnêtement sincèrement lan ngay jàngal li ci def lan mooy li ci def lan mooy euh, comme li ma la wax moom nguur gi mu bokk ñaar rekk mën a am ñu soxore ko ba ñu ñàkk lépp wala boog ñu def loolu tubaab bi wooye union sacrée maanaam nañu xeex ak suñuy ennemi bu ñu gañee après ñu ñëw régler suñuy problème suñu diggante ñaar rek mën a am sondage yëpp nag wane nañu benn bokk yaakaar bu ñu xàccandoo dóorandoo moo loolu mooy lan maanaam ñi bokk ci camp ñëpp am fief électoral ñëpp voté loo seen fief électoral ñëpp voté ko day gagné au premier tour loolu sondage yëpp wane na parce que réew mi Benno Bokk Yaakaar moo yor majorité bi élection yëpp daf ko wane nga jël local yi passé daf ko wane opposition bi dañu gagné ci grande ville yi mais dëkk yëpp daanaka benn bokkaar moo fa jaar moo ko gagné te boo jëlee nombre de voix Benno Bokk Yaakaar moom législative yi la même chose donc bu Benno Bokk Yaakaar xàccandoo dóorandoo Amadou Ba day gagné au premier tour loolu nag bu amul day dem deuxième tour bu demee deuxième tour nag moom comme ni ko war a joxe sans gagne sans perte te bu demee deuxième tour day metti ci moom ndax deuxième tour ku ne xam ne ni candidat pouvoir tour day metti ci moom parce que ci démocratie yu baree baree baree bari bu deuxième tour amee opposition bi ils ont tendance pour dindi fi nguur moo tax deuxième tour moom lu mu ko mën a éviter na ko éviter quoi que nag quoi que ci kaam moom mën nañu tempérer affaire lu tax ma wax loolu am na ñoo xam ne jàpp naa ni ci biir kujje gi nii du ñu bàyyi Amadou Ba dem di soutenir du Diomaye yaakaaruma comme ñan ku mel ni Idrissa Seck par exemple dem soutenir Diomaye Ba gëmoo ko waaw naa nekk nag mais gëmu ko même Khalifa Sall à la dem soutenir Diomaye bàyyi Idi gëmu ku mel ni Gakou dem soutenir Diomaye bàyyi Idi bàyyi kii ah non Gakou Gakou la bokk de defal ndànk rek defal ndànk rek nañu nañu dar rek soxna si nañu dar rek gis nga bu deuxième tour amee boo moytu di nga am ay surprise loolu la yàlla la nañu def ndànk yéen